بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يقول شاعر ياتي زمان فيضة تاتي على أصحاب هذا الختم غير مفند من غير ما قيد بتخصيص الزمان وكذاك تخصيص المكان المفرد ولطالما من الرجال طريقه كل تمنى نيلها بتفرد رب البرايا خصها بإمامنا شمس الهدى بحر الندى عن أحمد برحام عبد الله حامل سره مع رغم آناف العدا والحقد mbokk yi ñuy déglu ñu ñëw ak yéen ci jaar jaari cheikhul islaam alxaaji Ibrahima Niass eh, xam ngeen ne lu jafe la waxtaanee ku magee noonu dana am gaa ñu mu neex waaye dana am ñu ci sawaru wante ak lu mën a am ku réyee ni kile ci xam-xam bari ñu ko topp bari ay dongo ki taalibe bari ay soppe ku yaatu culture ak lu mu xam xam a mel ni géej tànqee ci moom ay góor yu bare ki jigéen mu am bëbb mu di faydu boo xam ne ay duusam te boona ca ay boromi xam-xam ak i fuqaa ay kilifa ki kàngam ak jaamukati yàlla waxtaanee kon jaar jaari Baye Niass nekkul lu yomb li ko tere yomb mooy matal ko moo dul mën a am waaye jafewul itam ndax la ñuy wax ci moom dafa bari mbokk yi nu bokk yàlla euh, li mën a ma ci lii nag mooy feeñal mayu yàlla ci jëmma joo xam ne ma ngi bokk ci góoru yàlla yi personalité boo xam ne ci wàllu xam-xam ci wàllu jikkoog moral lu yaatu la benn sophiste boo xam ne ñu bari ci jullit yi jëriñoo nañ ci moom koo xam ne ci loxoom euh, ñu bari jaar nañ ci ba dugg ci euh, lislaam ak ci tarixa bi ñoo xam ne kenn mënu leen a lim wala nga takk leen loolu yépp ci góor góorloom ak njàmbaaram mbokk yi nu bokk yàlla lii yépp nag ngir bëgg feeñal ngëneel lu yàlla indi cig nit ak xam-xam bu yàlla jox ab jaamam ñu feeñal itam metod bi mu jaaroon pour yar ci ay taalibeem ndaxte lee tey nit ñi mën ca roy na mu doon royee moom ci yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ak mag ña ko jiitu woon ci aw yiw ci xeetu sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi premier chapitre mooy kan mooy cheikhul islam alhaji ibrahima Niass pour wax loolu danga naan famille boobu dey wala xeet wala giir googu dey muy ñeseen ñan lañu ñoom dey seen cosaan ay arab lañu woon yu selluk arab ndax seen askan ma ngay dellu ci jàmbaar ju mag ju ñan uqbata ibnu nafi ibnu qays ibnu aqil mooy seen maam histoire daf ñuy wax ni lenn ci ay sëtam ku naan rida sani muy muy rida moo ñëwoon eh, ba biir Sénégal ci Jolof denc fa benn jigéen buñ naan jay la ñes am na ñu wax sax ne dafa feebaroon mu faj ko ñu may ko ko mu ba mu yàggee nag mu tukki delluwaat ca naaree wacce ko fa ndaw sa muy jay la dal di am doom ju góor ay bokkam tuddee ko sàmba jay la xam nga ni arab amul sant ñu jox ko santu yaayam muy ñes kon sàmba jay la mii mooy njël bennu maam mu ñuul ci famille ñeseen yii mu mujj nag yore santu ñes wax ji may wax mën ngaa dellu ca lii bàyyi ñes bindal boppam ci téeram bu ñaan naan Nuurul Xaq mu ngi ko bindoon 1959 ñu mul ko ca Iba Nigéria mbokk yi nu bokk yàlla alxaaji Ibrahima Niass mii euh, ñii ñoo di maamam bàyyi ma ngi tudd alxaaji Abdullah kooku Muhammad a ko jur ibnu Mademb ibnu Bakari ibnu Muhammadul Amin ibnu Samb ibnu Rida Sani ibnu Shamsuddin maysin ibnu xaamid ibnu xabibullah ibnu rida al awal ibrahim ibnu sadiq ibnu saqr ibnu batul ibnu daat ibnu makam ibnu oqbata ibnu naafi ibnu qays ibnu aqil kon ñoom ñu ngi bàyyeeku ci ay arab yu jóge woon ci afrique du nord gile ana fan la ñu dëkkoon ah, fi ñu dëkkoon mooy jolof la dëkkoon jolof nag mooy ci wàllu penkub càmmoñ ci sénégal dëkk bu ñu doon wax mbëlëxe mbëlëxe googu sax alxaaji abdullahi mi jur Baay Ñas fa gane àddina ci 1845 gannaaw ga nag ñu toxu nag jëm saalum saalum nag mooy ci wàllu euh, bëj saalum ci diggu réewu Sénégal lu taxoon ñu toxu dem foofu euh, famille bi muy ñeseen dañ leen a xame woon ci jàng ak jàngale ñu bari ci ñoom wattu woon nañu alquran moo tax buuri Saalum Maba Jaxu Ba bind lettre ne nañu ñaan ñu ñëw di ko dimbale ci tasaare xam-xam ak jihaar ci yoonu yàlla contre jaamukati xiram yi ak contre colonialiste français yi ah Mouhamad Niass dal di nangu loola Mouhamad nag mooy baayu mooy maamu Baay Niass mu nangu boobu invitation dal di jóg nag ànd ak soxnaam su ñaan xadijatu caam kooku doomu na jaayam la woon euh, mu ànd ak itam benn doomam bu amoon ñaar fukki at ak benn kookuy alxaji abdullah mi jur Baay Ñas toxu googu 1866 la woon mbokk yi ñu bokk yàlla euh, Seydi Mouhamed Niass moom ba mu toxoo ñëw Saalum ma ba dimbale ko mu sañc benn dëkk bu tudda Ñaseen ña seen nag ñaar fukki kilomètre lay sore Nioro ci à peu daal waaye Mouhamed Niass benn at la dund ci ñeseen yàlla dal koy moom ñu sul ko ci ñeseen Mouhamed moom mooy maamu Baye Niass moom euh, loolu 1867 la gannaaw loolu mbokki Baye Niass yi nag wala mbokki El Hadj Abdoulaye Niass yi toxu nañ jóge Jolof ak fu bari ñëw fekk si ko ñu sos nag ay dëkk yu bari ci biir Saalum moo tax ba léegi seen dëkk yooyu ñu ngi leen tuddee njolofeen dëkk yi nag yi ci gën a bari naa leen tudd ñeseen googu mu wax léegi Mouhamed Niass euh, sos ko muy maamu Baye Niass ñu sos Caamen Waalo Mbitteen Waalo Kër Ma Kanji Tawa Tayba Ñeseen fi nga xam ne fi la Baye Niass juddoo Caamen Sanc Koosi Mbitteen Koosi Caamen Tayba Mbitteen Kër Abibu Ñangeen Kër Maroqiya Kër Amarasta ak yeneen ak yeneen gannaaw ga nag yeneen famille toxu nañ ci famille Niassène waaye ñu nga jëm Fuuta ba ñu demee ba ci weti Matam ñu sañ fa dëkk bu naan Mogo ak Taïba Ngéyeen ma ñëw ci histoire yi sos Taïba Niassène alxaaji Abdullah bàyyi bàyyi Niass moom mooy ki nga xam ne moo sañ ca Taïba Niassène gu barke googu Taïba Niassène nag soriwut Niassène gi nga xam ne Mouhamed Niass maamu Baye Niass moo ko sampoon tey ba ñeseen googu alxaji abdullah bàyyi bàyyi ñes moom mooy ki nga xam ne moo ko sañc ngir toog fa di jàngale ak di bay di sàkku dund boo xam ne bu dagan la foofu la ko ma ba fekk dal di ko nommé moom alxaji abdullah ñes mu nekk qaadi ci wàllu sharia nit ñi nag di dikkal alxaji abdullah ñes du jóge fu ne ñii di wut si xam-xam ñii di wut si barki ma ñëw ci cheikhul islam alxaji ibrahima ñes damay wax ne alxaji abdullah ñas baayu alxaaji ibrahima ñas moom gàddaayoon na ànd ak sayar mati ba doomu ba ndax boobu colonialiste français yi dañ leen a sonal lool ne leen fokk ñu jàng làkk tubaab fokk ñu dugg ci armée français bi waaye bañ demee Gambie ki nga xam ne moo doon gouverneuru Gambie bi euh, représenté fi Angleterre muy Mr Roe moo leen recevoir toog nañ fa nag moom Alaaji Abdoulaye Niass Baye Baye Niass toog na ci Gàmbi ñeenti at gannaaw gi mu dellusiwaat Taïba Niassène ci 1898 mbokk yi nu bokk yàlla gannaaw ñaari at ci dellu seeg Alaaji Abdoulaye ci senegaal ci Taïba Niassène baayu Baye ci la gane àddina nag kin nar a waxtaanee muy suñu waaj yi di Alxaaji Ibrahima Niass loolu mu ngi nekkoon 1900 ci juddu jusi yi ma leen waxee juddu yonte li Isa la loola ci soir ma nga dëppook at mi nga xam ne benn pël bu naan juma juma ba ab pël la woon ci kër des Sadie booba la jóg ay ngànnaayam di xeex ak colonialiste français yi ba ñu mujj ko jàpp rey ko ci at moomu ci la Baye Niass gane àddina muy 1900 juddub yonte li Isa Alaaji Abdoulaye Niass mi jur Baye Niass gàddaayaat na beneen yoonu ñaareel delluwaat Gàmbi loolu moo tax doomam yu mujj yi nga xam ne euh, Baye Niass leen mag yépp bi lañ juddoo ñu ki Baye Mass Niass Baye Serigne Mbaye Niass Badiane Zeynabu Niass ñu koy wax Badiane Diaye Baye Cheikh Tidiane Niass ak Baye Amane Ngajj ñoom ñëpp ñu nga juddoo bi ca gàddaayu ñaareel ga dëkk bu naan Kër Sàmb Alxaji Abdoulaye Niass Baye Baye Niass toogaat na bi yeneen fukki at loolu moo tax ñu ne kon Alxaji Abdoulaye ñas dëkk na Gàmbi bi at ak ñeent door a toog si nag tey bañ a seen door a ñëw Kaolack gannaaw gi nag la ko euh, colonialiste yi jox kër mu ñëw nag toxu dëkk si biir Kaolack ñu dikk ci Baye Niass Alhaji Ibrahima Niass nan nu njàngee nu mu jàngee moom Baye ma ko jàngal Alhaji Abdoulaye Niass comme ni mu jàngalee ay doomam yépp wattu woon na alquran muy mokkal muy lu ñu naan kaan ci at yoo xam ne yu néew la woon ci mayu yàlla gannaaw ga tàmbali na di jàng xam-xam naxu mooy grammaire arab sarf mooy conjugation fiqh moy jurisprudence luga mooy littérature ulumul maani ak bayaan loolu mooy lebel littérature arabe mantiq mooy logique gannaaw ga mu géeju nag ci bépp xam-xam bu ñuy toxal wala xel di ko jàpp magam juñ naan alxaji mu Zeynabu sax mas na wax ci moom wax joo xam ne maa ngi koy wax nee na Baye Niass dey mooy sëriñ bu siiw bi moom dey mooy càkkutéefu ñu mag ña lañ doon ut ci ndaw yi moom dey mooy ki daan tegtale ci yàlla ci yitteem ak i waxam ci lu feeñ ak ci lu nëbbu muy lettre bu gudd lii alxaji mu Zeynabu bon ko bind 1929 eh, daaray Baye Niass yi Baye Niass daara yi mu sampoon xaaj Ibrahima Niass sampoon na ay daara moom jàngalekat la woon bu rëy moom moom daal mën ngaa wax ni moo di sëriñ lépp lu baatu sëriñ di tegtalee ci maanaa moom yenu won na ko école ba nag muy jàngale kaayam ba daaram ja xaajoon na ko ñeenti daara am na daara joo xam ne ca la ñuy jàngalee liifantu muy aba jëdd ak alquran ak mokkaloo gune yi alquran rafetal seen làmmiñ bu mu nekk làmmiñu naar boobu mu ngi ko méngale woon taalibey naari gànnaar yi ñoom rabbaani yi ak ñu mel ni ñooñu amoon na beneen euh, école boo xam ne beneen école boo xam ne da jàngale grammaire ak conjugaison loolu la jàngale mu méngale woon ko kuñ naan euh, alxaaji Amadou Thiam muy ba ñu xamee ko ci Baye Amadou amoon na itam beneen euh, école boo xam ne ñu ngi ko jagleloon fiq ak itam bind lettre yi ak li nga xam ne mooy fatwa ak bind taalif yi ak bind lijaasa jox ko muqaddam yi lii mu ngi ko méngale woon ku naan xaaja Alioune Cissé muy secrétaire particulier am ah, na beneen euh, section boo xam ne moo gën a kawe euh, ñu mën koo tuddee enseignement supérieur ci daaraam nga xam ne ci lay jàng mutoonul arabiya yi lu mel ni usul nga xam ne mooy la théologie lu mel ni balaaxa la belle littérature lu mel ni mantiq mu di logique lu mel ni tafsir muy firi alquran loola nag bàyyi ña sa ko yore leen boppam moo ko daan jàngale bu julee tisbaar rek jàngale ba jant so tax na ba ñi mu formé ñi mu jàngal kenn mu leen a tudd damay tënk rek ne génn na ci loxoom génnee na ci daaraam ci njàngaleem ak i daaraam ay boroomi xam-xam ay fuqaha ñu jéggi dayoo ay kuuy ci wàllu xam-xam ku sori xam na leen dégg leen ku jege it gis na leen ñooñu nag ñoo ñoo tasaaroo ci mbooleem réewu Sénégal ak Afrique gu ñuul gi en particulier dem nañ euh, gannaaw ga yàlla jagleel na ko lu ñuy tuddee fayda tijaniya moom laa doon wax ci njëlbéen gi ne waxoon nañ ne yaati zamanun faydatun taati ala ashaabi hada alxadmi gayra mufannadi faydu dana ñëw ci taalibe yi Cheikh Ahmad Tijaan muy faydu boo xam ne du jeexati loolu noonu la ñëwee ci kashful xijaab fayda tijaan yooyu boobu la ñu wuddalee woon ne dina feeñ ci taalibe tijaan yi yàlla jagleel na ko alxaaj ibrahima ñas muy baay ñas yàlla ko ko jagleel mu tàmbali nag di sóob taalibe yi ci yoon woowu mu yoonu sufisme muy tasawuf bari nañu ko topp ci biir réew mi ak ci biti réew mi nit ñi di ko dikkal nag ci wàll gu nekk mu yar nit ñi ci xam-xam di leen yar ci jàngale di leen yar ci jàmm yàlla di leen yar itam ci war a taqoo ay teggiin akub yar ak liggéey ci tool yi sàkku dund boo xam ne bu dagan la danaa tudd ci xeet yi ko topp tuuti xaaj Ibrahima Niass mbiram feeñ na ba jéggi na li nga xam ne mooy frontière Sénégal ba dem na ci eh, bitim réew Sénégalais yi ñi ko ci topp bari na Gambie Mauritanie Niger Nigeria Mali Guinée Ghana Cameroun Soudan Tchad Burkina Siin ba Arabie Saoudite ay xeet la yoo xam ne yu bari la am na ñoo xam ne Baay boole na seen tur ci wenn way nee na awaluhum hawsa wa ahlu jarma kazada gumba alxayru fihim amma kazaka katkuli wa farfaraw ataw kazaka ganjara wa min fayd rawaw wa qawmu gurma hubbu sanga fula gaw wallu axadu ani wila wa jaani min borne walmaraaqi qawmun kiraamun ragbata talaaqi wa jaani muse kazaka yoroba wa mambarsi wa jaani bambara moo leen tudd nee na xeet yi nga xam ne jàpp nañ ci man euh, di samay taalibe bari nañ mën ngaa wax ne ci biir Afrique ci penku Hausa ci njëkk am na xeet bu ñu naan jarma bu ñu naan dagumba am na katkuli am na farfaraw am na ganjara ñëpp dugg nañ ci sama faydu bi am na ñu naan gourma am na xubbu sanga am na ay pël am na gaawu ñëpp jàpp nañ ci man muuse yi ñëw nañ ak yorobaa yi ak bambara yi ak mabas yi ak ñeneen ak ñeneen loolu bokkul ak nag ñi ma jàpp ci man ci Mauritanie ci xeeti ay kàngami naari gannaar ak shérif yi daw ali soo tuddoon tey ku mel ni eh, Hamdul Mashri ci daw ali yi ñëpp xam nañ ko soo tuddeewul du nax wi ñëpp xam nañ soo tuddee eh, ki ki nga xam ne mooy Cherif Yaxya ñëpp xam nañ ko soo tuddee itam Hadi ñëpp xam nañ ko soo tuddee itam euh, ki nga xam ne mooy Ahmad Lamine Jagani ko ñëpp xam nañ ko kon jàngkat la bindkat la yaraatekat la ay taalifam suñ ci duggoon tey euh, dana bari xanaa tuuti la ci tënk rek cheikhul islam alxaaji ibrahima ñaas mooy borom faydu tijaaniya koo xam ne ku wattu woon alquran la alim la woon waykat la woon ku fasaa la jàngalekat la philosophe la suufi la jaamukatu yàlla la politicien la ku ñëw la woon ay taalifam nag bari na kon maa ngi jëm ci tudd ay taalifam ak ay bindam tuuti incha allah wax naa ne eh, alxaaji ibrahima Niass dama wax léegi ne la moom day fay du ñëwaloon na ko muy xam-xamu baatin ak tasawuf bu rëy ku wattu alquran la borom xam-xam la wax naa ne woykat la woon li mu def ci poésie kenn xam nu mu toll ku fasaax la wax naa ne jàngalekat la philosophe bu mag la sufi la bu mag jaamukatu yàlla la mën nga wax ne li mu taalif su ma ko doon tudd tey dana bari taalif na téere bu tudd ruuxul adab kooku pour yar taalibe la ba koy taalif ñaar fukki at benn la am moo ko wax mu ne wali bani ihda wa ishrina sana taalif na téere bu naan kaashiful albaas kooku ci tasawuf la kaashiful albaas fi faydal xadmi xadmi abil taalif na téere bu tudd raful malaam kooku ci fiq la amman qabada wa rafa amman rafaa wa qabada iqtidaan bi sayidil anaam li mu def ci ay fatwa ak i ki bind bari na wax na ci politique ifriqiya ilal ifriqiyin wax na ne indépendant ngi ñëw Afrique africains yi rek ñoo koy mujj yore wax na itam ne xukmun ajnabi li baladin ajnabi mada ila gayri rija ab jàmbur ak teeti réewam jàmbur kooku bàyyees na ne wéy na dootul dikk loolu mu ngi ko waxoon boori 1958 su ma doon lim tey diiwaan yi nga xam ne taalif na ko day bari waaye mën naa la ci tuddal quinze diwaan diwaan bu ci nekk daanaka xaw naa mat mille po mille poésie am na diwaan bu tudd taysiirul wusuul ila xadrati rasul am na diwaan bu tudd manasiku alil widaad fi ma di seydi saada am na diwaan bu tudd shifaawul asqaam fi ma di seydil anaam am na diwaan bu tudd sulwatu sujuun fi madxi nabiyil mamuun am na diwaan bu tudd nawaadirul xikam li saaxibi jawaamiil kalim am na diwaan bu tudd jalaa u sudur fi madi shuyuuxi wal buxuur am na diiwaan bu tudd kibritul ahmar fi tawassul bi awaa'il suwar am na diiwaan bu tudd miftaahul atiya fi l istigaasati bi xayril barija am na diiwaan bu tudd jabrul kasri fi madhi shafii yowm almaxshari am na diiwaan bu tudd urwatul wusqa fi madhi nabiyil muntaqa am na diiwaan bu tudd nuurul xaq fi madhi alladi jaa bi sidq am na diiwaan bu tudd tibul anfas fi madaayil xadmi abil abbas am na diwaan bu tudd Nuurul Xaq fi madxi alladi jaa bi sidq am na diwaan bu tudd Iksiru Saada fi madxi Sayidi Saada am na diwaan boo xam ne siira la taarix la histoire la la vie des prophètes la muy Nuurul Basar fi madxi xeyril bachar am na diwaan bu tudd eh, am na diwaan yeneen indil naa la ci fukk ak juróom damay daytalu foofu ngir bañ a jël waxtu wi ci loolu waaye li mu taalif bari na dundam yépp bind la woon ak way ak jàngale ak jàngale ak yar ay nit tarbiye leen jëme leen ci diine te li mu def ci ay xutbay juma maanaa munaasaba bu nekk occasion bu nekk am na xutba juma gu mu taalif waaye daawut jël genn rek di ko tari waaye bu koor jotee am na xutba ci taalif bu ajak makk jotee am na xutba gum ci taalif bu asaka jotee am na xutba gum ci taalif julli gi iid am na ci xutba julli korite julli tabaski noonu la bu fekkee dara xewut am na xutba goo xam ne mutlaqa la nga xam ne waaraate la mën nañ ko xutba ci waxtu wu ne am na xutba ci ngëneelal juma taalif na itam ci li nga xam ne moo di eh, naxwu muy grammaire ak conjugaison muy téere boo xam ne da ko taalifaat muy kitaabu tasrif ci ulumi sarf loolu eh, eh, ki doon bindal Euh, bëkk néegu pays bi alxaaji Alioune Cissé nee na ci genn wàlli bés la ko bind euh, alxaaji Ibrahima Niass Baye Niass ab tijaan la woon ci wàllu tariq waaye bu mag nag sunni la woon ci wàllu jaamu yàlla waaye bu rëy nag jaamukatu yàlla la woon jàkkam ja ak géew wasifaam ba ak toolam ya mu tegtale na ko ku dëddu woon àddina la yitteelu ko jumaam ja la muy rëy rëy rëy néeg ba mu dëkkee woon dañ ko tabaxoon ci ban ak suuf ba léegi euh, ma nga fa daana yar nit ñi ci xam-xam ak sharia daawul yar taalibe yi rek ci wax ju bari ak leneen waaye sharia ak jàng ak liggéey ci la daan yar taalibe yi loolu moo tax moom moo waxal boppam ne bi daahiri sharci wa nuuri lmubiini arub bi saalikiina bila shakkin wala riyabi moom moo waxoon ne ci li nga xam ne mooy Euh, sharia bu ñëpp xam ci zahir ak ci laa yar samay taalibe ak leer gu biir googu nga xam ne moo di xaqiqa ñëpp ñi nga xam ne ñu suubu ci la leen yar mu ne loolu nag sikka nekku ci amul itam benn werante euh, Baye Niass Alxaaj Ibrahima Niass daana wax ci tasawuf waaye lu nekk wax na ko ci mosoon na wax sax ne yàlla de mooy ki nga xam ne moo ma jagleel képp koo xam ne jàpp nga ci man wala ànd nga ak man da nga àgg ci yàlla mu ne wusuulu jamii almaasikiina bi xabliya taxaqaqahu man lam yukaddib bi rabbiya wa jaw bii fiyaafi fi lmucaarifi lam turam waqad qasura alaqtaabu an darki shaawiya bi fadli ilaahi nnaasi jalla jalaaluhu wa xubbi rasulillahi taxa nabiyiya mu ne àgg ci yàlla képp ku jàpp ci man ku jàpp ci suma buum am na ku ma ko jox te dëggal ko confirmer ko te kooku du fen lu mu wax rekk am na mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne li ma yàlla jagleel bu ma ko waxtaanee sant yàlla la waaye tëgguwuma puugarewuma bàkkuwuma itam kañuwuma wante ndënd la mu ma yàlla jox ma sant samp ko muy lancé défi mooy dugal ci nit ñi ci aw yoonu yàlla ba ñu àgg ci seen borom te kenn du dof kenn du ca joxe yàqu jagleel la yàlla jagleel fokk mu wax ko mu daal dina wax ji may wax nag chetaxaat yi nga xam ne suuf yoonu yu mag yi danañ ko def muy wax joo xam ne day mel ni wax ji borom dafa daanoo ci fas mu ne man jubluwuma ci loolu li ma ne ku jàpp ci man àgg ci yàlla kooku wa ma qultu qawli chatixan mutabajjihan wa ma massani sukurun yugayibu aqliya mu ne man shataxaat muy wax yu rëy yooyu suuf yoon yi di wax nga xam ne sax am na ñu ko ci wax ñuy doxee ci rey leen man jubluhuma ca lool waxu mooy wax jooja te sama samam xel mandiwut ci yàlla mandiwut ci sàngari àddina it ba muuru ba may wax loo xam ne nekkut damay wax rek li li li xew xaaj Ibrahima Niass yaraatekat la woon daana tere sax taalibe yi ak ndof doflu nee na bu kenn dof doflu bu kenn def yu xaraam yi bu kenn def mooy yàlla yi daana wax ne képp koo xam ne sama taalibe nga jàpp nga ci man jàng jaamu yàlla àgg ci yàlla liggéey gën a yaru loolu rek laa leen di yare waaye ku ciy woote ne xam nga yàlla tey def loo xam ne xeetu mooy yàlla la dëppoowul ak sharia mu ne loolu gàcce la ci yow lii la wax aarun liman istadaa wal irfaana an yataxallaqu bi ma qad shaana mu ne gàcce la ci ku woote ne xam na yàlla muy jikkuwati loo xam ne ku ko seet xam ne lu ñaaw la moo xam lu ñaaw la ci aada moo xam lu ñaaw la ci diine moo xam lu ñaaw la ci moral ku woote xam yàlla daal waratoo jikkoo loolu mosoon na dénk ay magu taalibe ñu ñuy tuddee majzubuun majzub su mënuma ko firi waaye damay wax rekk ne mooy ab taalibe walla ab jaam boo xam ne bari na lu muy tudd yàlla bari na lu muy xaatir bari na lu muy jaamu yàlla bari na lu muy wéet bari na lu muy góorgóorlu bari na lu muy jëli ci yonent bi bee pay ba xëcc ko ci boppam buñ ko xëccee ci boppam nag kooku la ñuy tuddee majzuub bu yàggee mu nekk nag waasil nekk ko àgg su àggee nag mu daa am lu ñaan fanaaw bu amee fanaaw bu yàggee mu am ba door a mat daana wax nag ne képp koo xam ne majzuum nga nga jóge ca dem dal di fettéerlu di def lu daganut di wax lu daganut di def lu ñaaw say topp yàlla rafetut mu ne jàng nga wacc nga yoon wa yoonu tasawuf bi ñu la dugaloon du boobu ndax kat Mawlana Cheikh Ahmad ibnu Muhammad Tijani bañ ko laajee lan mooy tasawuf daf ne woon mooy imtisaalul mamuraat wajtinaab almanhiyaat ñu ne ko lan mooy tasawuf moo ne tasawuf daal muy ma nekkul lu moy def ya ñu digle euh, bay ya ñu tere moo tax cheikh Mawlana Alxaaj Ibrahima Ñas cheikh al islam dafa waxoon ne tasawuf daal moo ne mu ne iba ibadatun wa ilmun wa maarifatun wa zahaadatun nee na xam-xam la jeex ci yàlla la dëddu àddina la jaamu yàlla la mu ne képp koo xam ne sa soufisme wala sa sophiste euh, génn na yooyu boo ko wootee da ngay woote te la ngay woote nekkut te boo sàgg ne lu bon fekk la ci waaye majzub nag bu mureekoo ca la ko muuroon mu mujj dal di fetteerlu topp yàllam rafetut su boobaa jéng na wala si njub ma bàyyi ne Cheikh Ibrahima Niass ne laqad xaaba majzubun saxaa wa tamarrada walam yuxsini taati maala an ilhuda mu daal di wax ne wa yaxsunu taqlilu lkalaami li taqtulu nufuusan bi taqlilil manaamil musaxaat mu ne perte na majzuub boo xam ne tey dem na ba mureeku ba nekk nit yi kese nga xam ne léegi jóge na ci fanaaw mu fetteerlu topp yàllaam rafetut mu jàng walis am njub mu ne ah dana rafet nag koo xam ne da ngay wootee àgg ci yàlla wala da ngay eh, xam yàlla dana rafet ci yow nag ngay néewal say wax nga sa bakkan ci xeyru wal xeyri yetti lépp lu dul yàlla nga ko ci mbokk yi ñuy déglu euh, Mawlana Cheikh Ibrahim ñees waxoon naa léegi ne nit la ku waxoon naa léegi ne ku yàlla màggal la waxoon naa léegi ne leen ku yàlla euh, xamal la waxoon naa leen léegi ne seedal na ko loolu ay nit yoo xam ne yu bari la wax ji may wax mën ngaa wax ne daal Baye Niass dafa nekkul rek wax dëgg nag sëriñab ordinaire ndax sëriñ la boo xam ne ñë ku ko sori xam nga ko ku ko jege xam nga ko te it yàlla dénkoon ko ay kaas yoo xam ne da ci daan nandal ay góor kon daal nekkul sëriñab ordinaire moom daal sëriñ la ci lépp bi addaqi taabir aalimun bi sharia wa luga ku xamoon sharia la ku xamoon luga la ku xam usul la ku xam tafsir la ku xam woy la muy cheru ku xam tasawuf la taalif na lu bari ci ay fan fànn yoo xam ne yu bari la am na ci yoo xam ne tuddal naa la ko am na ci yoo xam ne euh, tudduma ko li mu joxee nag ci ay fataawi ay xeeti fatwa mënuma ko tudd ci benn jamono problème bu nekk rek wax na ci xatta bi nga xamee ne américains yi njëkk nañoo dem ci weer yi wala waa Russie am Russie am ñu koy weddi defoon na ci benn fatwa ci la waxoon ni li ma jaaxal kay moo di ne jullit ñi sàggan ba yéefar yi leen ci weer wi ñoom ñu jóg léegi di wax naan loolu ku ko gëm nangam ak ki nangam ak ki nangam te yàlla waxoon bu yàgg ci alquran yaa maacharal jinni wal ins in istataatum an tanfudu min aqtaari samawati wal ard fanfudu laa tanfuduuna illa bi sultaan euh, mawlana alxaaj ibrahima ñaas cheikhul islam baay ñas téeréem bu ñu naan ruuxul ëdëb indi na ci lépp li nga xam ne mooy grande ligne yi nga xam ne taalibe bu bëgg a sóobu ci yoonu yàlla ci la war a jaar waxoon naa léegi ne ba koy taalif ñaar fukkeet ak benn la la am te moo ko wax moo wax ca mujj ne wali bani ixda wa ishrina sana maadiratan maqbulatan mustaxsana nee na xale bi day kii taalif téere bii muy boppam ñaar fukki at rekk la am ak benn maa ngi ñaan ngant ngeen dogal ma ngant bu ngeen gisee ab yàq ngeen xam ne dama nekk ndaw moo tax xaaj ibrahima ñaas cheikhul islam mosula neenal benn jamono ci jamonoy dundi doomu aadama lu muy bind na ca wax na ca moo xam ci wàllu xam-xam la moo xam ci wàllu diine la wax naa la attaa ci wàllu politique la ci gën a nekk misaal mooy li ma wax léegi ci bi gaañu àggee ci weer wi lim ci wax waaye ci beneen wàll bi itam ku fiire woon la diine lislaam ku ku ci fiir la woon ku ku jade ku ko daan yëkkati la musul nangu ku ko euh, laal daana wax ci boppam ne yasurruni an ara diina al ilahi azizan fi zamani wa arju dulla aadaayi daanaa wax ne dana ma bégloo de ma gis diine yàlla ja diine yàlla jii di lislaam dem ca kaw màgg ca kaw maa ngi yaakaar it toroxtaaneeg ñi nga xam ne ñooy noonu lislaam amoon na sax benn jamono ci ay mayam ak xam-xamam bu yaatu amoon na kenn koo xam ne bokkuloon sax ñun ak diine dafa toogoon bind ab téere dal di wax ne senegal day balaa yàgg li gën a bari ci ñi fa dëkkee danañu dem ci beneen diine bu duhul lislaam waaye boo ko bàyyi déggee euh, moomatul boppam dafa bind dal di ne fa Sénégal يأوي تحت ظل محمد ويعبد ربا جل شأنا موحدا ومن ظن ظنا غير هذا فظنه سقيم عليل باطل لن يؤيدا mu ne Sénégal day du dañ nekk ci keppaaru seydina muhammadin alayhi salaatu wasalaam di jaamu it yàlla mu màgg mi nga xam ne kenn rekk lay doon képp ku joortu ci Sénégal beneen njort bu mooy bii kooka njortam lu wopp la lu feebar la ak neen la te dee su ko dimbale ci loolu waxoon naa la ci wàllu euh, politique téeréem bi mu waxoon ifriqiya ilal ifriqiyin loolu it nga xam ne boo boobu wàll wàll itam ko neenal ci wàllu littérature arabe tuddal naa diwaan yi nga xam ne def na ko euh, yii histoire la comme noorul basar yii Mawlana Cheikh Tidiane la ciy waxe yii ay taqris la ay boromi xam-xam yu mu jamante jamonowante yii ay marsi la ay nit ñoo xam ne génn nañu ajina yii ay rexle la mooy ay tukkeem ak jaar jaaram bi muy dem Mauritanie bu muy dem Nigeria bu muy dem Ghana bu mu demee Conakry bu mu demee Mali bu mu demee Gambie bu mu demee Dakar hatta Dakar sax def na ko rexla jiitu Dakara وبها أحبابي أتوا إلينا وكذا أصحابي ñëw naa Dakar samay soppee nga fa ñëw naa Dakar fekk naa fa samay taalibe ndax ba muy dem gànnaar min kawlaxin surtout dafa waxoon ne jógee naa kawlax fi mislini wa rubbama an markabi yuslini xarajtu min kawlax fi mislin wa rubbama an markabi yuslini booba am na saxaar bu naan mislin bu gaaw la mu ne génn naa kaw la dugg ci mislin waaye aman na sax mu fàtteloo ma sama naas bu gaaw bi ma daan dugg ma loolu ci faydoom ak tarbiyam ak ni mu daan yaree ay taalibeem mbir la moo xam ne mu am solo la nit ñi daanañ ko dikkal ci waxtu wu nekk loolu ñëpp xam nañ ko ñii dañuy jàng si ñii dañuy jaamu si yàlla ñii dañuy wut si baatin ñii dañuy wut si barke ñii am na ñoo xam ne sax dañuy ñëw rek di wut si wërsëg pour mu may leen xam ngeen nekkul ku tabe la woon lu mu amal rek day joxe joxe joxe ba mu jeex nekkul koo xam ne dafay denc la ko daan dikkal ci alal di jóge fu nekk am na benn at kilifay naari ganaar yi dañ ne ko ñaata ngay dépensé par at ñu ne moom day daanaka weer wu nekk dana dépensé lu war a mat téeméeri junne CFA ci waxtu woowu benn kilifa ak naar ne benn chérif daw ali ne man jël naa weer sàngam ak weer sàngam kenn ki ne jël naa weer sàngam ak weer sàngam bañ ko defee ba at mi jeex ñu bëgg koo dajale jox ko xadimul xadra xajaalin sisi mu ne ma yëgal ko ko ba mu ko yëgalee mu ne bu ma kenn defal loolu nañ ma bàyyi ak yàlla dana ma jox euh, sama wërsëg bi may jox jaam yi nit la koo xam ne jàng jàngale ak liggéey amoon na benn jamono sax am ku ñëw wax rakkam sëriñ Baye Niass ne ko yéen de yéen a ngi bëgg a eh, bay yoon wu seen bàyyi rëddoon alaaji abdullah ndax yéen a ngi ci naas yeeg ci oto yeeg ci nangam yi mu daal di ne sëriñ mbay bu loolu bu mu la yitteel tashaagal bi ilmin waabudillah waxdahu wala tastamic illa fi iktisaabi almanaafic fa in qila inna naakibuuna an ilhuda wa an naaji abdillahi aw naaji sharici fa hal sanna abdullahi illa ishtigaalahu bi ilmin wa diinin wa ittihaadi almazaarici walakin mawlaana raqibun wa aalimun wa laysa bi daarin ma siwaahu bi naafi mu ne ko sëriñ Mbay léegi na nga soxla woo jàng ak jàngale ak jaamu yàlla bul déglu ku lay waxe lu mooy ci sàkku ay njëriñ ñu waxee ne ñun dañoo jàng bàyyi njub mi bàyyi nañ laalaaji Abdullahi rëddoon wala yonent bi nang leen tontu ne ndax Abdullahi suñu baay daana soxlawoo lu mooy jàng jàngale joxe diine ak ja wut ay tool loolu day ci la ñu nekk kon nag wax leen lool rek alxaaj ibrahima ñes ku ñu xamoon la muy bàyyi ci njàmbaar ku ñu xamoon la ci wakkilu ci yàlla ku ñu xamoon la ci eh, ñeme mosoon nañ ko wax benn bés ne ko am na ñu jóg def ay pexe ngir eh, nga génn àddina walla ñu ngi lay liggéey ñu ngi lay jabar mu ne eh لجأت إلى المولى العلي جل شأنه لدفعي وجلبي قد كفاني حسنه mu ne man ci yàlla rek lay wéeru yàlla mi nga xam ne mu màgg la yàlla moom mooy fanqal ay lor mooy bijjal ay njëriñ mu ne aarug yàlla doy na ma gis nga loolu 1940 la ko wëyoon waxoon na itam ne yàlla mooy ki nga xam ne doy na ma kon euh, bu may jeexal damay wax ne boo dégloo dara ci alxaaji Ibrahima Niass da nga xam ne kat moom nit la woon koo xam ne eh, ku rëy la kon dundam lu bari ay njëriñ la ci xam-xam ak jikko ñu ko topp ñu dëggu lañ ñu xam yàlla lañ ay waliyu lañ déglu ay xibaaram eh, moo déglu xibaar yi mag ñi baax na ndax dañ ci mën a royee déglu ay waxam ak i jëfam teew dafa dëppoo ak sunna lu am njëriñ la wax ay xibaaram ak i jëfam dafay tekki ne loolu dafay lay lépp luñ ko askane woon te newut ci moom xamle kan moo di Baye Niass dana bégloo ay soppe mën naa jajjit ñi nga xam ne ñoo koy wedd mbokk yi xam naa ne euh, lu bari la du jeex waaye duma def lu moy tàggu leen fii di leen dikk nag ci euh, waxtaan wi nga xam ne mooy ñëw ñu indi leen lu bari ci ay ngëneel ak i may yoo alxaaji Ibrahima Niass yal na yàlla def ci ñun topp ak euh, dégg ak topp may ñu ñu mën a roy salafu saalix yi ak topp ko ci yi ngir yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.